Bon, ces terrains, on les a reçus par la mairie, avec les documents en appui. On en avait un fichier relatif au paiement des frais de bornage fixé par la délibération numéro 2 du 14 avril 2006 par M. Mafal. Délibération numéro 13, cédée en date du 17 janvier 2018 portant l'affectation de TNI. Et le mercredi 17 janvier, qui a été approuvé par le conseil municipal de Djamniadio. Il y en avait les vues, ainsi de suite. Il y a les documents qui sont là qui les montrent. Donc, à notre surprise, quand on a vu les agents qui étaient venus détruire, par le biais de la à un monsieur qui s'appelle Mamadba, C'est lui le directeur de la C'est la qui a commandité. On les a clairement dit que les sites, il appartient à d'autrui. C'est la population de Djamniadio. Les terres, ils étaient lotis au biais de la, de, la mairie de Djamniadio. Il y avait les gens qui habitent ici dans ce site il y a des constructions, il y a tout qui est là. Donc euh, toutes ces populations, on peut pas les, toute cette population, on peut pas les mettre dehors à cause d'une personne qui vient pour intimider la population de Diamniadio. tey jii kooku xamuñu fu mu jóge lalanyu lan la bëgg lan la ñuy indil mu ngi intimider di intimider ba tey jii barrage boo xamante mu ngi fii si suñu gannaaw mu ngi exister depuis en 1938 ba Moi, moom tey mu ngi pour Sur barrage Bobu. yemul yemul ci loolu si loo xamante lotissement administratif la. boo xamante ne dañ koo dañ koo def approuvé que par le sous-préfet de de Mbambilor monsieur Marcel Thiaw loolu noonu dañ ko approuvé muy ay terrain yoo xamante ne dafa nekk fii moom mu continuer si harcèlement yooyu si loo xamante ne tegu tegu ko si benn argument boo xamante ne ñi ni dañoo xam ne si lii la ñu nekk. quant à bi am na benn danger boo xamante ne da see nekk bu kenn seetaanee ba mu suul ko boo ëllëgee ñoom dinañ sol seen i ñëw di jaale ay nit di leen di leen dédommager si loo xamante ne ni ñoom dañ koo seetaan. keroog bi fi sous préfet bi fi préfet ñëwee la wax la wax ki mu fekkoon ne ko monsieur le président mom moko jox Momar Ba pour mu jox ko ay allemand ñun nak ay sénégalais lañ du ñuy allemand du ay gambien nous sommes des sénégalais et nous resterons des sénégalais. benen bi moy mom da fay continuer né yorna na ab baay te fii dafa am délibération bo xamanténi ça existe depuis 2006 té délibération beneen baay mënul wat ci kawam mom leer nako né kon mënul am fi dara tax na fay jaar ci souf di xol ay nit pour ñom ñu jaay ko seen li ñu jot yor. ku nekk si dëgg nag doo jaar si suuf di jënd pour jéem a keneen yor li mu yor mu jaay nga nga jaay ko ko. kon ñun dañoo xaar suñu tànk tubéy jàppale suñu borom kër yi pour ñu mën ñoo def si situation yu baax aisé ñu parce que kenn ku nekk loolu ngay ñaan yàlla ñaanoo yàlla dee si location loolu ñu ngi la koy ñaan mareem fay sàlla ñu ngi la koy ñaan nga jàppale ñu ngir yàlla ak yonent bi sonn nañ suñu borom kër yi sonn nañ parce que ñu ngi nii da lekkatuñu naanatuñu déjà bi lii amee ñun nelawatuñu ñun ñi seeni soxna nelawatuñu lépp pour jàppale suñu borom kër yi maa ngi lay ñaan nag Marème Faye Sall ngeen dimbali ñu ngeen dimbali ñu nag ñaan nañ la ko yow mi jigéen te xam li jigéen di souffrir si këram ñu ngi la koy ñaan ngeen wax ci lii ak ak monsieur président de la république.